voilà <laughs> affaire puus <laughs> moom man xam nga sama position daf ci simple. Eh. mooy waruñu ñaan yàlla. Eh. nekk ci situation bu ñu war a pousser élection présidentielle. cest à bu ñu ci nekkee rek mooy situation Sénégal dafa nekk ci situation bu garaaw. mu am instabilité bu doy waar mu am wala ñu nekk situation de guerre yu demee noonu. kon ak lu mënti nekk affaire dafa war a am encore que boo ko bëggoon def day jafe parce que article 101 bi ñu révisé moo ngi fi. bu wax ni mënutoo même par de manière dérogatoire pour nga def ko day jafe. léegi euh, tey. élection yi des na juróom-ñetti weer. Mhm. on va modifier le cadre légal d'ailleurs moo expliqué un peu timing bi mooy moo tax bi président waxee ja d'ailleurs je l'avais même avant il faut que en euh, dans la perspective de du protocole la la CEDEAO. Mhm. mais même bu dul loolu bu dul protocole bi parce que man ñoom si seen euh, comment dirais-je introduction euh, comment dirais-je comité nu mu tuddati bi. Mhm. dañuy invoquer protocole bi ba pare yow. su waa waa waa waa waa waa cour de justice CEDEAO décidé dara doo ko def par exemple li ñu doon wax nii yëpp ay Nations Unies ak ay ay ay les normes internationales da ko wax defoo ko mhm. kon amul sens maintenant nag en dehors de de de bi dafa am impératif lié au calendrier mooy parrainage bi dafa war a démarrer le 28 août parce que code bi moo ni ministre bi muy jël euh, arrêté pour fixer montant cautionnement bi 180 jours avant en même temps ci lay jël euh, arrêté bi xam ne mooy fixé en fait modèle fiche bi de parrainage bi donc officiellement parrainage boobu au foofu la war a démarrer mm-hmm. or balaa loolu mën a am mm-hmm. il faut que ñu modifier la constitution sur le parrainage mm-hmm. du rek code électoral bi comme comme comme yeneen élection yi moo ko wax constitution bi moo ni 0,8 à 1 pour cent des électeurs léegi nag ñoom d'accord nañu 0,6 ak 0,8 Euh, yeneen mécanisme moom mooy euh, euh, parrainage. mooy parrainage justement c'est l'occasion de revenir d'ailleurs sur sur l'option qui a été prise. Mm-hmm. mais avant donc bu ñu paree loolu tey bu ñu tënkee xam nga dañu a modifier constitution bi il bi doog modifier code électoral bi. Mm-hmm. nga modifier ko ak délai yi xam ne de recours yeeg yooyu nga doog mën jël. li nga war jël pour pour pour candidature donc forcément il faut ñu boucler le cadre légal ci mm-hmm. loolu moo expliqué d'ailleurs empressement bi. euh, maintenant globalement. Mm -hmm. quand même il faut le dire globalement euh, y a des accords ci li ñu doon discuter yu ëpp. mais man li ma jàpp rek mooy ñaari ponk yi nga xam ne ñoo gënoon am solo à mon avis. Mm -hmm. ce la question euh, mais mooy affaire u euh, restauration du euh, du droit de vote bi. ak ouais. affaire u parrainage bi. te ñaar yëpp au delà de lii xew fii de manière ponctuelle loolu dafa am ay chartes parrainage bi am dogal donc on s'attendait à ce que. ñu atenuer bu baax ak parrainage bi donte nag ñun depuis 2018 ñoo njëkk a proposé société civile nañ def parrainage optionnel parce que au fond parrainage bi li ko tax a jóg mooy euh, rationaliser les candidatures. segg ko waaw mais ginnaaw boo yow nga wane sa représentativité. Mm-hmm. donc on a toujours considéré que koo xam ne am na une représentation à l'Assemblée nationale am na ay élus locaux départementaux municipaux yu bëri kooku mën nañ ko exempter ci lañu wax ni nag euh, bu maintenant boo amul yooyu. nga doog a recourir maintenant au parrainage citoyen comme ni mais euh, dañu tëb def ko ci ay maanaam euh, chiffres yoo xam ni dafa dafa vraiment dafa dafa proportionnelul et d'ailleurs su nga ko xoolee tax raisonnement au cours de CEDEAO c'était très simple dañu jël le nombre de de de parrains exigés multiplié ko par le nombre de partis mu dépassé le fichier mm-hmm. donc ñu joxe ay injonction maintenant tey euh, rafetlu nañ le fait que ñu jël euh, le parrainage optionnel mais malheureusement ci niñ ko Euh, ni ñu ko appliqué moo baaxul parce que euh, tey fi ñu toll mooy li nga xam ne moom la ñu signé mooy treize députés. pour hmm. treize députés. il faut nit ñi di seetlu 2012 alternance bi mu amee ba 2012 ba léegi ñaata parti pris individuellement d' ñoo am treize députés à l' assemblée nationale cela veut dire quoi raisonnement bu simple c' est à mën nga dem élection am cinq cent à six cent mille voix nga ñëw assemblée nationale ñu ne la yow mënoo parrainer amoo nombre bu la parrainer député. or ku am 500000 voix. mais mais c'est-à-dire que yow mën nga daan nekk chef de l'opposition. deuxièmement deuxièmement encore plus grave. on termine nga ne boo amul loolu. Mhm. da ngay jël non pas des les élus euh, territoriaux mais les maires et les présidents de conseils départementaux ñu ni tey 20 euh, pour cent yi 20 pour cent yi c'est autour de 120. kan moo ci am 120 ci opposition bi kenn léegi est-ce que da nga war a def parrainage op euh, maanaam optionnel boo xam ne ça profite à un parti ou deux c'est ça qui est am na leneen lu ci la la laxasu xam nga mooy lan. mooy le suspense sur la candidature bi waroon a leer ci moment parrainage citoyen bi léegi président bu ko neexee bàyyi ba veille candidature mu woo treize députés ñi la signé leen ma ma dem déposé yi beneen affaire le parrainage citoyen dañ ñu woon dañ koy wàññi alors ñu jeexal si parce que foofu aussi mm-hmm. euh, dañu jógee si 0,6 8 ñëw si 0,6 alors foofu laay wax nii defuñu effort bu bëri je tiens à le dire parce que boo jógee si euh, si 0,6 mooy jógee nga 53000 ñëw 45000 lu tax ñoom xooluñu ni entre temps fichier bi dafa évoluer de plus de 300000 voix donc da jógee finalement li ñu yokk bëriwul on on continue à exiger 45000 alors que benn électeur moo am droit de vote. il y a aussi de choses à dire sur le système de collecte le système justement de contrôle et de de vérification.